moo tax yàlla na leen yàlla defal jàmm. alors mhm. euh, général Moussa Fall bi nga déggee ne wàcc na euh, lan la la def. aw ma sama yoon nekku ci yooyu yu may wax ak. yooyu ah bon waaw. man kay gis naa ne c'est la deuxième fois ma la koy laaj et pourtant actualité la sëñ Mara. man actualité bu may wax. waaw damaa bëgg it. di wax actualité boo xam ne. bu may tuddee tur yu bari yoo xam ne sénégalais yi jeexitali dafa metti sam waa ji waaw laaj ma ci leneen daal non général Moussa Fall laaj na ko yàlla defal jàmm mu wàcc wàcc na na dem kii ñëw yi wàcc na wàcc na jërëjëf foofu daal laaj ma mën a yem ndax it ma wax loolu ma bëggut a wax wàcc na wàcc na wàcc na wàcc na kay alors que ñu bëri prononcé xaw ma li xaw ma ci dara li may laaj ñu bëri wu nañ non non man mënuma ko xaw ma ci dara mënoo prononcé wu ci général ma koo xamul sax mu xaw ma loolu mu xaw ma ko am na ñoo ma fi daan laaj ca élection yi di ma wax seeni tur man na leen xaw ma leen kii moom la xaw bu ma laaj li ma xamoon nag man xaw ma. général Moussa xam. Euh, d' accord Serigne Mara y' a pas de euh, en tout cas mën nañu continuer émission bi mhm. vu que loo bëggul wax doo ci wax mais quand même euh, je pense xam nga Farba Ngom aussi. non non. xamuloo Farba. déedéet. ndax yow. <laughs> teg teg maa laaj ci Sonko wala Jomaay. sëñ Mara finalement. kan nga xam kan nga kan nga xam wala nga laaj ma ku ci mel ni ñu baax ñen fal ñoom Waly Diouf Bodian ak ñoom Falilou Kayta teg maa laaj li Sénégal yi bëgg. finalement moo gën nga may divertir man mënoo maa divertir Cheikh bi. mais far farba nga farba xaw ma li may laaj. waaw. man laa laaj ma bu ma waxee yow bu may wax ci ñu ma xamul sax xanaa di nga ma ragal. dooma laaj ci DG yu bees yi nga xam ne ku ci mel ni Waly Diouf Bodian il est mérite mm-hmm. ku ci mel ni Fofana ku ci mel ni biram eh, eh, Birame Souley dooma laaj ñooñu. mais est tamit dafa am. ak ñoom Abbas Fall ñii war a ñëw. benn jéppi goo jéppi wax dëgg yàlla ñii fi jóge ba ba ba nangoo nangoo prononcé seen tur. man jéppiwuma kenn waaye waaye waaye waaye réew mi daal ñi ma teg naqar man teg ko réew mi. man man man man man daal am na bañ cee wax damaa gënal di wax ci lu bees lii fi xew. ba ci Mame Mbaye Niang sax ba ci Mame Mbaye Niang nag da ngay laa yabal. non non ba ci ba ci euh, nga Cheikh bi. bul ma dugal ci yooyu. ok bul ma wax loolu lu ma ma lu wax booy boo toogee ne na di ma wax ay Mame man man man. yaa ngi may yaa ngi may man yaa ngi may tooñ ci lan. mais question sama naqar non non. question la cheikh bi question la. yow mënoo maa wax Mame Mbaye te sama xel demul ci fitna juñ doon teg président Ousmane Sonko mu jaar ci loxoom ak ndaw yi ci faatu. de un de deux Mame taxawaat barki démb na damay wax sama àqulaay taxalaa rapport am na yow léegi man ban Mame Mbaye nga may laaj ci ñaar yooyu. bi waxoon ne rapport amul ak bi waxoon ne rapport am na. waaw yow ban Mame Mbaye Niang nga may laaj yow yow mi may laaj yow ki nga may laaj sax moom xamut yow li nga may ki may laaj xamut boppam xamut kan la xamut li am ak ñi yow li fi jaar dafa cheikh bi nañ dimbala ma lillaahi wa rasuli bul ma bul ma bul ma indil jafe-jafe boo xam ne xaw ma lu ma ci tontu loolu neexut benn sénégalais. mais tu as raison. Ah, tu raison kay. est-ce que bi ma lay laaj xamul ki ki ma lay laaj xamul ban la ci dina woon rapport amul ak dina rapport am na non xaw ma boo ciy laaj xaw ma ko alors 72 heures yi waa euh, patriote yi xewal aussi mhm. euh, naka nga ko gisee ñoom aussi ku waxtaan yi lu ñaaw ci Basi mhm. fal nañ ko ba pare mhm. mais ñi ngi continuer di ko protéger kenn du wax lu ñaaw ci Sonko wala Bassirou affaire bi kay 75 ans lañ ko war a def rek 72 heures yi ah. yi daa gàtt nañ koy def 75 ans ku ci wax lu ñaaw fii ak 60 ke moom da gis nga dafa am ñoo xam ne kenn warul di wax ci ñoom lu ñaaw ndax jëfuñu ci réew mi lu ñaaw bi ñu nekkee fa yàq jotee dañoo defar ñu ñëw fi nga xam ne xam nga fay fa yàq jotee. Mhm. ñu bari ñu ngi impôt dañ koo yàq. xale yi seeni loxoy set ñu ñëw amuñu lenn luñ leen ŋàññe benn noon taxaw fële bëgg koo bàyyeeg boy yi puisque du leen ko may nag. Mhm. toog fee rek. kenn ñu bari ñu ngi wax nag du ñoom dafa am ñu nekk seen ginnaaw di leen wax loolu. Mhm. moo tax 72 heures ak 75 ak 73 heures lépp a ci yam gis nga gone yii. Mhm. yéen a ne woon mbir mi réseaux sociaux képp la yam yamu fa de ndax gone yi ñoo fal. wallaay dëgg la. ñi ñëw na amuñu kàddaa gis nga nit ak lim bëgg. Mhm. keroog ba nga koy gënee yàq yaa koy encouragé mu lay gën a bëgg. dëgg la. te loolu dafa yàqalul Sonko ñoom yeewooguñ ci loolu ba tey. Sonko jomaay loolu du leen yàqal xam nga lu se ba tax booy di la jox ay 72 heures loolu yow nit ki balaa ngay wax dara xool ko xoolaat ko mais caméra yi bu tàkkee rek dañuy perturbé wu lu ñaaw rek la wax te wallaahi ñi ñuy waxal xamuñu leen Sonko lii man maa la ko wax billaahi wal kitaabi ñu bari ñi ngi tudd turam ak di ko prononcé ak di jël mbiram di ko teg ci deram xamuñu Sonko te Sonko leen gën man dama ne la fi ne man xam nga ci lan laa toll di ko liggéey guddi yi ma wax la ko mm-hmm. kan mooy dëgg dëgg dëggi Sonko. moom nga nekk di liggéey man ci laa nekk di liggéey. pour xam ko. waaw. et pourtant yaa ñu waxoon nañu wàlliwu la. ñëpp di la critiquer ñëpp ni kii waxam ji fu mu ko teg. Oh, may yàlla yi ci wàlliwu rek la yam nga foog wàlliwu moo dàmbi lépp. wàlliwu am na lu ko su exemple bu doon euh, boo doon boo doon journaliste euh, présentateur ak rapporteur. Mm-hmm. Euh, ak présentateur. Mm-hmm. am na directeur général. dëgg la wàlliwu. gennu cër la ci mayaakunu suñ boroom gi mais am na lu ko féete kaw dama ne man dama toll ci jàng président Ousmane Sonko lu mu maa ko ko wax ne naa ko cëru bi yàlla nga joxe waaye yàlla dencal na la cëram te wallaahi bu yàlla ñëwee ci moom dina xam ne Sonko Sonko mooy gor. ndeysaan. fa laay de Sonko mooy gor. gor dëgg mën lii. Sonko moo baax Sonko moo xam àdduna. Sonko Sonko Sonko li sëñ Saliou waxoon da da koo firi. Mhm. du ma fekk lu yàlla yaatal mukk ma koy xatal. ndeysaan. Sonko ab dimbalaakum moo mën a wallu nit it. Sonko moo mën a Sonko moo mën a valoriser nit lu yàlla def la. moo mën a fekkoon ku ñëpp xeet Sonko yëkkati ko. Mhm. waa sénégalais yi jërut nag ñu xam Sonko mooy kan. tu cul moo tax man ku ma jàkkaarloo moom nga koy saaga wala ngay wax sax fur laa sax ngay jël lu ñàkk teggin di ko teg ci kawam damay xam ne yàlla nekkul ci yow te yow bokkoo ci ñi nga xam ne dañuy liggéeyal yàlla mais ku xam fa ko yàlla làq Sonko ku ku muus dëgg boo wéetee moom da nga naan ko defal ma ñaan ku muus nag laa wax te xam barke yonenti yàlla Mouhamed lii maa la ko wax du ma wax mukk loo xam ne xawuma ko président Ousmane Sonko bu ko sénégalais yi xamoon wallaahi képp ku jàkkaarloog moom danga naan foqet sa mbaxana na ko defal ma ñaan. waaw. ki fal député fali maire fal président waa kii kumu ba noppi ab cëram mu jël ko moo tax ma wax la benn mbir. Hmm. sénégalais yi waa ji bu mu ñu gën a gore de. dëgg la Sonko bu mu ñu gën a gore de te dina ko fekke te Sonko bor bii mu sofe gii mu sofe réew mi ba teg fi jomaay Sonko nañ ko fay borom donte du ak yéeneem du ak bëggam mais Sonko billaahi wal quraan ku nara dox suñu digganteeg Sonko nañ ko dañ tay suñu bakkan wax ji jeex bu kenn dox suñu